bana mais ay Ronaldo di jouer ay match quatre-vingt-dix minutes te ñu mag ko ak ñeneen di jouer ay match Modric qui il faut Sénégal aussi il faut que ñu bàyyi yenn débat yi parce que saa Sadio eh, je l'ai trouvé très bon hier très très bon xam nga peut-être dugalul xam nga mais il a été très bon mais Sadio quand même ñun de mënuñu am ku ko gën. boo xoolee qualité technique débat boobu sax rafet na. ñu ko yëkkati ci ay doomu Sénégal parce que c'est-à-dire ñun li ñuy wax moment bi ñoom ñi ngi ñuy suivre seen i yaay ñi ngi ñuy suivre. seen i papa ñi ngi ñuy suivre c'est-à-dire des fois ma ma man je me est que yenn débat yi jar na ñu koy ñu koy ñu koy yëkkati pour dee sénégalais yoo xamante ne moment bi ñu ngi jouer ils sont en activité te seen seen dëkk jaral leen lu nekk. ma Sadio Sénégalais ñu ngi posé sur réseaux sociaux loolu du débat loolu du débat gis nga les clubs européens booy ñëw ils sont suffisamment outillés pour xam ndax yow ni nga performant wala doo performant mm. loolu rek c'est assez indicateur par exemple Sadio bu nekkoon ay benn at a ko dese ki ñaari at Bayer di ko signaler trois ans xaw deux ans. Mm. xam def na test médicaux yeeg yooyu. Mm-hmm. c'est quelqu'un Sadio bon on sent que c'est quelqu'un bon enfin je l'ai pas approché xaw ma ko. mais parfois il est un peu émotionnel da koy sentir si lu mu jógee dafa metti koo xam ne voilà de justesse nga perte ballon d'or qui est deuxième ñëw dans un dans un club boo xam ne c'est un autre environnement c'est une autre langue mm-hmm. xam nga tu te blesses alors que espoir bu mag la club bi amoon si yow tu rates la coupe du monde ah yow mosoo vivre li nga vivre mais quand même yaa da nga ko une petite période ah, mu defaruwaat amaat automatique mais il a été bon mm. il sera très bon contre le Brésil